Idrissa Seck ci wàllum politique ndax gis nañ ne euh, tey ci ngoon daal jot nañu ay euh, ab communiqué boo jógee bu ñuy xamal ne il est mis fin aux fonctions du président du conseil économique social et environnemental mu Idrissa Seck mais également euh, de ses ministres yi nga xam ne ñoo nekkoon ci euh, gouvernement bi avant ñuy ñëw ci li nga xam ne mooy peut-être fond bi euh, la forme parce que Idriss Seck nous avait annoncé une démission de sa part déjà mais également des ministres yi nga xam ne moo leen yabaloon ci gouvernement bi ndax niñ ko bindee jàpp nga ne am na luñ ci mën a wax wala c'est juste une formalité boo xam ne amul lenn loo xam ne mën nañ ci débattre waaw man dama yaakaar ne li ci gën a am solo mooy euh, lan moo taxoon ñoom ñu Idrissa Seck ñëw mm-hmm. Euh, président de la république dafa woote ñu woote pour une collaboration mais une collaboration bi nga xamante ne dafa nekkoon collaboration bu ponctuelle ba nga xamante ne bu ñu eggee ci horizon 2024 ku ci nekk it li nga sentir rek na nga ko sentir nga def ko. lu ci gën a am solo mooy ñu rafet rafetlu ndax euh, ànd neex na waaye ko bàyyi mu dem ak mbagam mais na lépp rafet. Mhm. te yaakaar naa ni euh, Sénégal ñëpp nangu nañu ni yëf rafet na. Ah, loolu ci am solo amoon na solo gis nañu que ne sàmm ngeen ko ci li ngeen ko mënee mais ni mu jeexee ay kàddu tàmbali woon na de votre camp euh, ay kilifa pas les ku ci mel ne Oumar Youm euh, ku ci mel ne Amadou Boun doon nañ ci wax ba Idrissa Seck sàkku ci ñoom ñu bañ a tontu mais tey jii nii ak ni tàqalikoo bi amee ndax mën nañ jàpp que ne euh, relation yi nga xam ne doon ngeen ko am ci lu rafet day continuer wala maintenant Idrissa Seck est à comme un un opposant un adversaire politique. man li ma ci jàpp mënuma ci gis leneen lu dul président ci Sall li mu wax. rafetlu na ko rafetlu na ànd bi euh, ñaanal na ko te yaakaar naa ni ci foofu lañu ndax Sénégal ñu ñëpp ko bokk. mais il devient un adversaire oh, parce oh. que yéen Macky Sall mooy seen candidat pour 2024 il il a déclaré sa candidature. waaw mais liberté la Sénégal nag ñëpp ko bokk ku ci nekk sañ nga yëkkati sa loxo ne da ko bëgg. Mhm. li ci am solo rek mooy jour vote bi bu ñu ci eggee le 25 février bu soobee yàlla Sénégalais bu ne dem voté kan la yàlla teg. moo nekk waa dañ ci tollagul nag fi mu toll ni jàmm la ñuy sàkku sàkku nañ ko léegi euh, ut dëkk bi ut réew mi démocratie la ñu nekk yàgg na kujje politique yàgg na fi am ñu def ko nag ci façon bu civilisée façon bu euh, responsable te yaakaar naa ni loolu euh, am nañ ci njort bu baax. mais ni ngay waxee soxna si madame le ministre ak ni sa Seck remercier le président ci depart bi dafay alimenter. ay rumeur yu doon wax que ne ñoom ñaar réeroowuñu parce que aussi gis nañu que ne ànd euh, mën na bañ a euh, euh, tàqaliko mën na bañ a violent mais gis nañu que ne daal warul bàyyi lenn loo xam ne njortu dafay am déjà on a vu Abdourahmane def benn post di di ñaawlu li xew jamono ji parce que jàpp na ne combine bi nga am diggante Idrissa sa ak am Sall pour divertir position waaw nañ ko déggee woon rek bi Idrissa Seck ñëwee dañu ne woon combine la mhm. Euh, moo doon plan kile euh, te gis nañ ni loolu amul donc euh, dama xamul lu tax léegi rek ñu war a jël Sénégal xëy rek foog ni kujje politique bi dañu war a nekk di saaganteeg di xëppante acide élégance fii la fekk baax teranga fii la fekk baax du tere it ku ci nekk nga aw sa yoon te buñ ci tollee rek sénégalais ñu may leen ñu tànn. Idrissa Seck en 2013 il vous avait quitté une première fois mayu leen woon dara on s'en rappelle fas bi dañ ko war a làbbali vision bi weesuwul jam ñaajoo yooyu yëpp c'était Idrissa Seck donc pourquoi tey mu war a rafet alors que avant xawoon na xawoon na ñagas. waaw sant yàlla sant yàlla ba mu ne vision bi foofu la yemoon te dellu si waat ne vision bi dépassé na ko donc euh, bu ñuy ut luy tàng nañu am ci lecture bi yem ci lii te ñaan yàlla daal jàmm sax. Mhm. léegi par rapport à ces démissions ak li ñu jàpp ne euh, Idrissa Seck en tant que président du conseil économique social et environnemental indil na ko réew mi ak ses ministres Diatara il a fait des résultats il a eu à faire ses preuves au ministère des sports indil nañu ñaari coupe ñett coupe d'Afrique bu ma juumul Ali Saleh Ali Ali Saleh Diop en tant que ministre de l'élevage les acteurs de l'élevage dañoo dañoo applaudir bi ñu ko falee ak li mu def ci ay preuves am tey jii pourquoi euh, se priver de si bons euh, éléments bu fekkee ne rek doxal réew mi moom moo moo leen tax a jóg. waaw mais sëñ bi nag cimetière nga fees dell ak ay nit ñu mën. ak ay nit ñu xarañ euh, président de la république. Mm-hmm. situation bu nekk ak lecture ba mu ciy am. situation bi ñu nekk lii la laaj ñu laaj ñu defee ko noonu donc euh, Ali Sale Diop euh, euh Yankhoba Diattara. Mhm. on a été des collègues au niveau du ministère euh, plutôt du gouvernement euh, il ma me revient même pas de les juger ndax du euh, man maa leen fa teg. Mhm. waaye lu rafet rek lañ fa def lu rafet rek lañ fa gis te euh, de manière personnelle jàmm la ñu séq waaye situation politique bi bu ko laajee ba seen kilifa ne day dem ñoom ñu xool analyser ko ne dañuy ànd ak moom mais loolu seen responsabilité la. Mhm.